suñ health ah, suñ wérgu yaram daal dafa nekk loo xamante ne dafa important torop ah, tey daal ah, news buñ leen amal boo xamante ne comme xam nga we will discuss about it here mooy the people of Bakoteh and the surrounding xam nga ñoom daal xam nga ñoom ñoo joxe information bi ne comme xam nga ñoom dañ soona they are definitely tired because that place fi nga xamante ne di Bakoteh Dome site despite the Kanifing municipal council xam nga ñoom dañ fe defense foofu noonu still now xam they are still facing a lot of challenges because uh, uh, that place comme suñ ko lakkee like comme suñ fa safara comme xam um, um, burn the rubbish there uh, the smoke xam nga disturb that surrounding and not only that the um, the way that place smell too is definitely disturbing them xam nga mu ngi disturb gaa yi lu bëri te suñ wérgu yaram bi xam nga waruñoo toog ñu xaar ba ñu then and start looking for medication prevention prevention is better than cure so ñoom suñ génnee ah, pour waxtaan ak askan bi ah, ah, ñu joxe information to Gambian government soo gisee always nga nit ñi suñoo wax nga dañ dee wax government bi because they believe na comme nga ñun suñ ñoom suñ demee ñu toog ba munatuñ the only people you know the main body bi nga xamante ne comme xam kan come to the rescue Hanga, nga pour ñu génn ñu support land. that is the government loolu moo Hanga, xam nga gars yi ñu wax loolu noonu pour ñu try to see how best Hanga, nga dinañ mun move that dump site to a place where in hanga the people will not actually be disturbed because low mom, definitely it's supposed to be uh, they they they need mm-hmm. help mm-hmm. Uh, people at backwater, we all know that they are suffering. Mm -hmm. This have been years uh-huh. now. Uh-huh. léegi du legi, te woo dëgg neexul and uh, we all know ne uh, we've been talking about cancer. few days ago. and this is the cost of it. it's part of it. part yeah. of it. why I say so mooy. Uh, the right. smoke mm -hmm. that these people are inhaling, mm -hmm. it's definitely killing them mm -hmm. slowly. understand nga. Mm-hmm. I mean I even the asthmatic patients. Mm-hmm. gis nga suñ suñ suñ taalee foofu noonu. I'm mm-hmm. not even telling you ni Bakoteh. but even Manjai there uh, are some areas in Manjai. saxaar bi daf leen dee affect. I'm telling you. loolu moo tax ñu ne city bi Bakoteh and the surrounding. Ministry of Health. dañ war a jël seen uh, seen seen. matuwaay ñu jóg dimbal leen. Euh, diwaan boobu noonu mun nañ koo wécci mhm. foofu mun nañ koo def ay mool mun nañ koo def many other things mhm. ñu sampa ko mhm. mu nekk loo xamante ne nii Gambian youth will be working there foofu rëy na yaatu na lu nekk xit yaatu na nañ fa génnee mbalit boobu ñuy sànni ut feneen fuñ ko def fuddul buur dëgg neexul waaye wa waa waa baakoote li liñuy jambatu deug la sonn nañ torop ñepp ko xam deug neexul <laughs> waxuma la nga dëgg ñu bañ ko wax rek xet bi di la rey xawal mo bëgg laaj waxal waxal ñu ñun dal ñu ngeen ak nit ñi kan ñofa jitu jiitu mbalit bi ak nit ñi nit ñi ñofa jitu jiitu mbalit bi te mbalit bi nit ñi ñoko fa def damay laajte déglu mo bu baax nit ñi ñoo fa jiitu mbalit ma tontu la lolu ñu leer foofu ban an lañ doon dafa tuur mbalit. yàgg na waaye nit ñi ñoo leen fa jiitu. waaw ndax bañ fay tuur mbalit. Ah. amoon na population bi. déedéet déedéet amu ko woon. xam nga loo gis ay waxtaane la. dëgg la. toog nañ fi ay at yu bari. baakootee dumping site boobu noonu. ñun mm-hmm. kuy gàmbeel xam nga ko. Mm-hmm. te mbalit bu ñuy génnee. Mm-hmm. duñ ne fu ne lañ koy sànni. dëgg la. mbalit fi ñu koy sànnee bu yàggee ci suufam suuf soosu dafa am lu fay nekk mhm. soo gisee nii taamu jël mbalit teg ko benn place mu mhm. yàggee suuf soosu noonu mhm. day am ferñeent yi muy mbalit boobu di jural suuf soosu yaa fertilizer for agricultural use ngay gis ne nit ñi ñun baal ñu fii sax maytu fu ñu sànni mbalit. bu ñu ko taalee fii. Tabakor bu ñu dëkk ko dootul nooyi. dëgg la ah Bour yow li nga nekk di wax nii dafa nekk loo xamante ne ah, ñëpp xam nañ ko. waaye problème boo gis there should be a solution or there must be a solution. doguma la ñii dañ nekk ñoo xamante ne. doguma la day dying slowly. waaye kii kon mu ne. Mhm. da dafa njëkk mhm. bi ak nit ñi ñan a fa jiitu. Mhm. te ñu ma ne ko nit ñi léegi yow loo bëgg. pour nit ñi ñu jógee fa bàyyi fa mbalit bi. déedéet. <laughs> ndax léegi ah, ah, ah eh, eh, bien sûr. léegi nag xam nga ne ma nga yëgal. waxal déedéet. mbalit bi. foog ñu am fu ñu koy tuur. Hmm, wax ko te wax ko loolu la gars yi wax. mbalit bi. Hmm. foog ñu am fu ñu koy tuur. Hmm. nañ xool taay mi ñu ko war a taal. nañ xool ni ñu koy taale nañ xool naka la ñëw liggéeyee ba nga xamante mbalit boobu noonu. mun nañ ko li ñu naan recycler. def ko mooy loo xamante ne. ñu recycle ko waaw recycle ko. mooy recycler bi. nga xam ne dina mën a jur yeneen ak leneen. waaye nag man gëmaguma ne. right right now. Mm-hmm. dañu mën a jëlee mbalit fa mu nekk ci bàkkoote ndaxte government bi tam amaguñ si de. waa léegi xoolal ah wax dëgg la de. buur géwél xoolal noo li nga ah, xaaral li ñu mën a def mooy. Ah. buur géwél. mais de dama dama jekkali dama jekkali balaa jekkali ah, waa kii duñ ko may dara waxal jekkali fa ma daane. waa daane lay. li may wax dafa ma ñor. Exdaan création ci diwaani Bakkaw ñu koy nuyu di ko ziar dëgg neexul tamit barke yonent bi su ma nga am gan xoolal suba dañuy ñëw sa place. déggoo ma de waa buur nee na nuyu na la. dégg nga dégg suba dañoo ñëw sa place audio mbénteeg mu ne sunu yëf. moom it nee na nuyu na la sunu papa. waa suñ pap léegi toj. Esdam mi ne la Esdam. ba Esdam création foofu ci diwaan Bakaw. waaw mi nga xamante ne bu la sañsele rek tubaarkaala macha allah man ku ma gis xam ne damaa tamit. torop sax ah, man moo ma takkal suma musoo bi sax barke yonenté ak ay sa ka musul dama tay bass ay deug neexul lu ne am na borom amna luma nek di wax nga deglu ma duma la mëna deglu moma takal suma musul bi <laughs> sa yef waaw est da mu lay jaar bu baax li ma doon wax rek moy gis nga nit nit hmm yaa su borom bu mu saké hmm jëlu yëpp tegal hmm daf ñuy won buntu rek ñuy gor gor hmm te lu ne ay waxtaan la mhm. dëgg neexul te metti na torop allah ngay hin hin ay sahari yi ñooy hmm mhm. waye am na ñu bëri ba ñuy dem di fa dëkk sax xam nañ foofu dafay tàng. Mm-hmm. waaye ndax xam nañ situation bi noonu la mel. loolu moo tax ah, pour géwél. nee na dëgg sax li li ngeen sori. it's okay. li ngeen. tension bi la dama xam li may wax dama ko fu ma ñor. waaw waxi mag laa leen di wax. waa xam naa xoolal. xam nga dem di dëkk foofu ñu bëri dem di fa dëkk ji. Mm-hmm. fekk nañ fa saxaar si. dëgg la waaye bu balaa ngaa ñëw si loolu noonu. di content. of that that that that place. Oh, ok because ah, dama Bourgueil léegi da ngeen may ma wax. ah waaw jëlal may lan ma ma wax. xoolal man waaw waaw xaaral su ma waxee ba pare. nga soog a daaneel ah ñoom xam nañ ne ah time bu ñu fa doon dem ah boobu noonu xam nga melutoon noonu waaye léegi situation bi xam nga nu mu mel it doesn't feeboo dem xam nga feeboowut lan ba pare ñoom xam nga seen life seen health dafa nekk loo xamante ne it's a concern. understand xoolal ñoom lu ñu wax ñoom xoolal ñoom lu ñu wax si seen wax dara di nga ma gëm xoolal dogguma la de ba ma tuuti rek dogguma la su ma la waxee dara di nga ma gëm mm-hmm. est-ce que xam nga ne mbalit bi ñuy tuur may tuur marit bi ñuy tuur bàkkote moo ko ëppa ah? fuuf voilà moo tax du benn ba pare au moins mm-hmm. fii mm-hmm. may ma tuuti rek au moins fii ba euh, euh, may tuur tane na xaw na yow Banjul bu ndaw bi. Eh, mais ma xoolal bi ko tuddee Banjul fu. xoolal gis nga man lay waxee. man daal dama gis solution xala to this problem xaw ma ndax yéen gis ngeen ko. dafay tàkk ba buur set ba fekkiwaat guddi gi ndax mbalit bi bari bi mu bari li ma lay wax dama ko xam. Ah, xoolal ah. because yow xam nga ne li ma lay wax xam naa ko. gis nga man itam lu ma bëgg a wax di nit ñi. because maytu mbalit bi luñ ko taal taal taal du dem benn bis. lingeer lingeer. Hmm? gis nga man itam lu ma lu ma leen bëgg a wax nii dafa nekk loo xamante ne dama si xam dara honnêtement nga ah, ñoom luñ nekk waaw luñ am bëri na te loolu moo baax loolu moo baax xoolal ñu luñ xam moo bëri waaw waaw ay ñun dooñu tojal de duñ ko nangu xoolal gis nga xam nga foo ko téyee du foofu ah. ko téyee du foofu do you know what the solution should be ah. ñu ñoom hmm. luñ gaay war a def mooy because yow wax nga dara xam nga sa biir wax nga ne time bu fa gaay doon dem fekk like population bi xam nga was not like that nit ñi bari woon uh, woon foofu noonu so and and the more um, the place is populated then xam nga um, the more mbalit tamit xam nga muy bëri understand nga. soo soo léegi soo léegi ñoom lu ñu war a def mooy. dañu war a uh, try to relocate that place ñu yóbbu ko si place boo xamante ne du du di stop nit ñi loolu la gars yi war a def. let them move that place to a, an environment bi nga xamante ne they don't have so many people there. amul so many dañ ko def. nañ ko yóbbu si àll bi loolu la gars yi war a def. bañ a mën yow li nga nekk di wax nii su fekkoon ne yow yaa fa di kon di kon gars wax loolu ngay wax. di seen ngay wax waaw yéen a ngi nii yéen a ngi nii. we are here for you people you are suffering something has to be done. gars yi dañu a def dara après Birkaama laa wax côté yooyu noonu yëpp. Ah, àll la ah, yow xoolal diggante Birkaama ak ak Faaraato sax. Mm-hmm. foofu yëpp ah. àll waaye xam nga tamit. Um, foofu yow foofu noonu àll la àll boo xamante ne yow fo. fële nu mu tudd xoolal xoolal xoolal. su ma xel bi am na. airport airport man dama laa jàppale li ngeer xoolal. gis nga foofu tamit. waxal yëpp rek. xam nga suñ puus bi tey buñ déglu wante. dinañ gën a joxante mi xel. man li may wax contre ma ci kenn. non la. waaye man dama ne. ñun nan dita lañ. doomu la understand. dañuy gis lu ñuul ñu bëgg a feexee ut lu weex lu ciy taf. ok. tey jii Dompin Saay dafa yàgg foofu noonu. yow foofu la moo ñëw. kii ku ah, yow état lay ree laa ndax la boole si waxtaan bi <laughs> because momit sometimes you romba fofu no head bi daf ko dee disturb loolu moo tax kii turi dëkk yi mahamoud ni bay laj tek nga may laj yo ko de tout lolou la ree parce que man fi lay <laughs> jawale taw Johnson ak oncle Johnson mune mune mu farato, diggante faaraato eh. mosuma la bànjulo ndéng ni mo mm. yobo ya xasse ñooñu de non mom diggante bir kama ak dem bor geeg geeg gi eh. dem ay bor euh, fele mandina ma moom foofu yëpp xamul ne ay dëkk la. waaye léeg lañ ne bugg a xamal. tey jii ñun. Mm. government bi. Mm-hmm. am na loo xamante ne duñ ko mën a liggéey ci ñaar bala ñetti at bala juróomi at sax. Mm-hmm. waaye dumping site bi. Mm-hmm. dañuy war a seet tamit naka la ñu réguler ba nga xamante ne saxaar su bëri soosu muy génnee. buñ taalee fii bàyyi fii. wala ñu taal bàyyi fële. wala kansa ni mu nga ñoo xamante ne waaye da gis ne xoolal. saxaar gis nga Europe dafa am bale gaaw a jox doomu aadama li ngeen ma ne laal xanaa xamuloo ñoo ñëpp gis nga affaire bi ah te dafa dee dafa nekk feebar boo xamante ne dafay làqatu mom bi ngay saw koy da fay fek waxtu bo mu ngi commencer di la ray mhm. lima lay wax xamna ko bu baax. Mhm. et puis da ngay xol tamit ne buñ dekk niñ doon toge ma ak léegi sama xaar ko yàlla suuf seen ko amiin yàlla bi ak mbolam bu ñak sa yaaya ah. sa feebar bi lifin sukur mu dem jënd ji mu su minté am febar de ñak febar de de dal ben lay doon. ndeysaan ah lii mooy prevention is better than cure dafa they want to prevent themselves so let's help them. nit nit. Mm-hmm. war na fu mu toll saytu wér gu yaram te wér gu yaram la ñuy wax. dafa important. ndaxte tey jii. Mm-hmm. saxaar. Mm-hmm. man xam nga ci bëgg. ay cuuraay gongo. ay ñëfale xalangu. loolu sax su ëppee sax bu ëpp bi sax nga leneen la dee saxaar kay baaxut baaxut lu baaxut nag baaxut. xanaa da nga fàtte ñun ñooy gis. jël leen waaw waaw. ñun ñooy xam lépp. lu bon moo xam nga bon. yaa ngi waaw. ñëfale xalangu. ah lii daal moo ci raye sax ne waru saxaar war na gëli xeeñ ñeex mais waru saxaar. Ah, waaye Linguère ak toxkat yi. Linguère eh, dafa am dafa am benn. yéen toxkat yi lay waxal. sama benn jigéen. toxkat yi bàyyi leen tox mi. léegi mu ne ma sëriñ bi nee na eh, docteur bi nee na saxaar si baaxul ma ne ko de saxaar buy xeeñ ne de yar na ma rey. <laughs> saxaar boo xam ne xëy ne. waaw ah. yar na ma rey. Ah. nañ bàyyi saxaar président Baro. Mhm. bu nit taalee mbalit yi. Mhm. bu xamas taalal leen cuuraay. <laughs> cuuraay di ñëw si wonderful viewers out there um, alba sirin je alba mol juɓe kan kontan tan sewota hane mbiya ah, pour kardema en doron alba min kala doron walla al continue ko molla programme o follo andum fanagal sa molla vidéol siya an ah, tolɓe janna pour a tol bara ñin dow komo fennete mi yalan komin kon tolta kenolaa tol koma an ah, jata kendaya kaccamɓe walla an kan programme o min ka ka because nka different topics all discuss uh, ah, mbe min fo kan doran sa walan ko min ko uh, ah, bakote ngol anin uh, ah, bakote dandangol la uh, mol mi yalan ko be steering je uh, ye yela kol ya ko me yitande uh, ka fo ko min ko um, um, CCO anin sunkango min be dandi mbalito la uh, mol ka min fay jaye batande bakale woto itol dal uh, ibe information no nyen uh, sen la kay tandi ko min ko ne wodula nyen sa move no le uh, itol dal ay ta dula to yalan ko min ko atel modol batande la uh, abe diale tole bakele um, andum fanan uh, ibe torarin bakele woto man sakunda ani momorandi yalan komin ko imari sa makoyro keno a kuwoñin kono um, ibe makoyro danila uh, la uh, ñima kuti mi yalan komin ko molbe be ñanta pour ka juube la nga juube be makoyno la ñamen hana mam mufno fanan um, um, man sakunda sa kisi kisi ro keno le aya juube asa mon kula keno because ni tara tubabu do ñing mbalitol be jela wala banku dolto but uh, they have other solutions mi yalan komin ko isa wala keno uh, mi yalan kanko min ko fulkaŋo ñinta finte la baake anno fanan sisiyo ñin fananta mool batande la baake ha bot ah, a kuwo kuran ndin aka commencé la cilin ayata santo ñanta bondi la je ya samba la boto ha lafta ka develop la so nga ngina sotale bi na jata kenda yala karola saimbe min kala dorong ambita ah, break la la ne mool murtanan dorong ah, dan nga topiko na fale na mi yalan ko min ko wala sotale on our social news ala baraka baake albasiri ñat je ñam amingal ka mul jube black queen sister linger and em burgewel ngata break la ne murtanan dorong we continue on the social news